mais am na ñoo xam ne moom am na benn commissaire bu deewoon ah nit ñi ne daf ko mooy yàlla na dem safar nit ñi foofu leen tool mais nit ñi nante am ne ne kii dafa toog ñu dem filmer ko ñi ciy wax yépp seen koy génnoon na den ko bañ bañ bi lii ak lii ak lii la seen yoon nekku ci tey leen lay gën a bëgg boo taalee live nag dineen ñëw seetaan di dineen ree dem mais buñ ca paree kii leen bëgg mooy li ma nantee dono yow la ñuy topp mais élection yi jomaay la ñuy wote <laughs> dañuy seetaan suma live ma ruubee ba bëri seen ñu xëy woteel jomaay ndànk ñëwaat toog naan ma sëñ bi noo ko dundee and life goes on fii nothing is serious maanaam dara sérieuxul ci àddina mm-hmm. lépp ci yow la des dara sérieuxul mm-hmm. lépp ci yow la des fii dara mënu laa gaañ lu mooy mu loo nangu mu gaañ la mentalité la quoi mais man moom dama fiy nekk nit ñi di ma gën a bëgg may gën a yor information yi gën a luur di ko teg ci temps di ko benn benno tempo nit ñi dem maa bëgg. mais loolu ngay def sëñ bi yow kaa ko tuddee wala noo ko tuddee. ah non man duma kaa man damay xeex injustice. Mhm. maanaam tey su ma bëggee rek nit ñi ñëw déglu maa ngi ay audio yoo xam ne ak ay mbir mun naa koo teg mais duma ko def. du ma def loolu. mais sëñ bi ah yow parfois man xam naa ma natt naa sa intelligence euh, parfois dama lay xoole comme euh, waa ji Thiès politicien ba. Talla Sylla. non non. Idrissa Seck. Idrissa Seck. Uh-huh. maanaam da ngeen muus ba wër seen bopp yéen maanaam seen muus dafa wër seen muus da ngeen a muus ba doo comprendre donc est-ce que parfois. acte yi ngay def walla yi ngay présenté di nga toog nga xalaat ci nga ne ah lii waruma ko woon def wala bi ma ko defee gaañ na wala nit laa nit nit laa wax donte li may wax dëgg la. Mhm. mën naa gaañ mën naa yàq. mën naa tas mbokk. Mhm. mën naa naa nga nga ci. cas bu mel ni exemple eh, Momo Dieng. mel ni bu mel ni. Eh. mais day day yëngal kër day yëngal waa eh. eh. waa baax na tuddatuma turam baal ko tuddatuma turam ay kaa yeneen kaa quoi du ma bëgguma tudd tur mais comme Dora Gueye par exemple wala Viviane wala yenn cas yi wala aadama aadama Bey yooyu noonu nga tudd nga wax ci ba pare après nga toog réfléchir ne ah man kat ku dëggu laa damay wax dëgg li may wax dëgg la mais dëgg bii di yàq tey aussi te est-ce que amal na ma njëriñ wala waroon naa ko wax di tas kër wala di yëngal sëy wala genre. si dina <laughs> te dina am rek nga ci mën a tontu. la bokk daal après on passe à autre chose. munoo wax ne yow da nga mat wax doo ci jàngat. ba loo wax buñ la delloowaatoon temps nga waxaat ko ça c'est c'est pas vrai mais da nga koy xam nga noté nga ne ah, lii moom suma sañoon duma ko wax. wala lii su ma sañoon duma ko waxee nii wala lii duma ko wax heure bii nga jàng mais say nit yu la jege dineen la wax nga nangu di nga waxtaan ak ñoom. ok mais pour jëflanteel loolu du seen affaire. ni nga koy doxale nii am na ñoo xam ne niñ ko jàngate mooy li aadama doon def aadamoo doon def moom nga ñëw dàq ci aadamoo jël palaasam. ñoom. dama leen arrangé wul rek. bu dee c'est kaa loo xam ne yow da ko doon xeex ci aadamoo di ko ñaawlu rafetlu woo ko tey nga koy def noo koy jàngate man lii laa musa def man kër sëriñ si laa njëkk a dénoncé ne lislaam amu fa. Mhm. xanaa nit ñi dañ koo fàtte. mooy dóor ya waaw. man leen lislaam amu fa te ni ñuy tànnee njiit baaxul du du diini. loolu kaala ma ñëwaat ma ne Sénégal géwél yi politicien ak sëriñ ñoo yàq réew mi loolu kaala noo la nit ñi leen ko fàtte maag sànneexa toogoon mu ne ma comment ma expliqué ko ma ne ko géwélee fekk ko am xaalis mu taggee ko jikko ju baax nit ñëpp foog ne xaalis la ñëpp wuti xaalis kenn baaxatul Sénégal mhm. politicien mooy ñëw fen la ba pare nga fal ko nga xam ne dalee fen ngeen ànd ci ñu def dëkk bi fenkat ba ku fenul ku fenul ci politique mënoo gañ réew mi sëriñ si war a jiite diine ji di dundee diine ji te dundaluñ diine tey la jumaa yi gën a bari waaye tey la nit gën a soxor dàq jow dàq fen katante gi mu kàppo day jeex senegal salle de massage yaa ngi ubbi te ku ubbi la mu dox dangay gis jeeg bu ne ling senegal leer am xaalis fu ne mu dem te amul lu may bajoom bi bu kër sëriñ si doxoon def seen liggéey sëriñ taalibe yi nii mooy yàlla gi wàññi loolu kaa la Momo Dieng takk Zeynab mm-hmm. mu di ko jox xaalis di ko teral mu dem toroxal ko ba pare sànni ko ma koy xeex ngir jigéen du Massaly kat mama à l'âge de 19 ans biiral ko bañ doom ji doom ji war a jàngi ma taxaw xeex loolu Viviane di jigéen tas am doom metti aada bey di tappalekat ma ne leen kii sëy bi du yàgg def leen attention ëllëg bu amee bu leen xas Viviane loolu mooy ka ba may wax ci dossier Doro yoon tegagut ko loxo ba muy dugg kaso loolu mooy ka soo gis ma taf nit ne kii daf doon kattante wala kii leen def lii kii leen def nangam su ma yoon nekkul ci loolu vie privée la katt dagan na Sénégal xaraamul katt fa xale ak force jigéen dafa xaraam ci constitution bi parce que àttewuñu l'islam nii charia kon ñaan ñu kattante du suma affaire bokkuma ci cas yooyu man loo gis ma teg ko rek injustice lay xeex bu politique jotee nag ku ma neex lay far su politique jeexee awma lu ma xeex teg naa dossier bi maa ngi ambiance di waxtaan di kaf waaye actuellement nii nii nii nii nii su ma bëggoon a kaa mën naa di kaa suba ak ngoon bu may wax suba du bokk ak bu ngoon ndax tey la Sénégal gën a lëcc li jaarut yoon tey la gën a ñàkk a jaar yoon te nit ñi den maa wóolu ci information parce que boo ma waxee du feeñ du ma teg sa audio du ma wax sa tur du du ma la enregistré man ngay wax ma traité ko dem su ma yoon moo tax ñëpp wóolu ma man du ma teg audio jàmbur kaa yi ñooy ñëw ci man yenn saay ma réglé ko ci suuf dox ko wax ko ba mu jeex noppi loo gis ma yuuxu ci kaw solution moo ci amul parce que kaw gi fajul tey nii rek balaa may laay fagi réglé naa sëy Gàmbi waxtaan ba juboo Amérique fii maa ngi fii réglé sëy Europe noonu parce que man awma intérêt wu lu ñëw rek ma wax ci pour suma compte dund musuta am ci suma àddina ma génnee weeni jigéen wala taatu jigéen ci àddina nii bu góor musuma exposé ñaar ñu doon laalante ne kaay leen wax ni ngeen laalante musuma ko def te duma ko mus a def parce que loolu vie privée nit la duma def loolu léegi nag la ma toog ci xilaafa yi di déranger moo tax ñoom pour minimiser ma den ma naan yi lañ doon bañal aadama ngay def dangay yàq dari gor xam nga ñen ñoo koy wax ña ànd ak tam arrangé wul